donc foofu laa jàng alxuraan ci ki ñuy wax sëñ Fass Touré foofu lañ jàngi ñun ñëpp ñoom Sidi Ahmed ñoom Mame Ousmane ñëpp ñoo bokkoon ñuy doomu sëñ Abdou donc foofu lim ma lim sol defe naa lu si bëri li ma am si àdduna defe naa si loolu la jógee waaye nag euh, comme ni ma koy waxee saa su ne aussi gis na nom d'ouverture tey ma demee Touba niñ may tertoo niñ may tatagalee comme ni ñu def Tiwaawan lañ koy defee donc bu ma demee si laaye ni euh, kazalika donc man homme d'ouverture là defe naa conflit yëpp ñoo nekk benn parce que li may wax aussi mooy euh, dafa am benn borom xam-xam tubaab bu ne euh, ndok bi mu xamee islam balaa laata muy xam juliti loolu li muy misaal mooy euh, bu ñu natt ab confrérie yi si comportement ay ñenn ñi waaye sëñ Touba la ma doon wax Hadj Malick la ma doon wax yëpp benn la si yonent bi la jëm si yàlla la jëm donc ñun ñëpp benn lañu loolu nañ koy doxal di ko wéy defe naa loolu bu ñu ko defee Sénégal dina am jàmm. te Sénégal sa jàmm rek mu fi naan te dina ko def incha allah yàlla dina ko def bu neexee yàlla. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على